vidéo bi ah, di Ndeye Ndiaye ma bokk ak baayam ndey ak baay baayam teg ñu fi ñu war a teg sama càmmiñ ñëpp teg ñu fi ñu war a teg Ndeye Ndiaye di bërëm yi mbokk nag yor ay bàjjenam yor ay cousinam yor ay cousin yor ay doomam ah naan li xew day ñu ngi koy jéggalu àdduna bi yépp di ko baalu ñëpp àq ndax lu jóge ci xol rek ci xol lay dem te nit boo xasee ba jur rek moomatoo sa bopp erreur la nday xale rek la xamul dara bëgg aar bi topp ci ay tànku yaayam ak ay tànku bàjjanam ak ay tànku baayam jël nag maamam di bànn si soxo ñëpp xam ko ci àdduna mu jur ni kon nday xam nga ni li ko dal erreur rek la waaye àdduna ku xalaat na it am nga rakk am nga yaay am nga doom am nga sœur am nga jabar am nga jarbaat xëy na lii vidéo bi demee kat borom bu réfléchiroon war na koo mën a war na koo mën a bañ a jël di ko wan àdduna waaye ñun amuñu dara lu ñuy wax di ko jéggalu waa àdduna di ko jéggal ñépp di ñaan ngeen baal ñu àq ci lii dal suñu doom du coobareem xëy na du nii la ko bëggee woon waaye bu ndox tuuroo an bàq rekk ci des ñun nag waa Banaya samay mag ak samay mag magi góor ak samay rakk ak samay jarbaat ñu ngi leen di baalu àq